أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن أشهد محمد رسول أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تعالى في محكم التنزيل فمن اتبع هداي فلا يدل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحسره يوم القيامة أعمى mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi sunu xutba tey mooy fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa sunu borom subhanahu wa taala bi mu sàkkee aadama ak hawa dugal leen biir aljanna dafa am lu mu sàkku ci ñoom dafa am lu mu bëggoon ci ñoom mu ne leen nekk leen aljanna lekk leen naan leen waaye garab gi bu leen ko jegee wala taqraba haadihi shajara fa takuna min alzalimin ngalawaay aadama yàgg sa soxna jox naa leen autorisation biir aljanna lekk leen naan leen waaye garab gi bu leen ko jege ñu dugg nekk aljanna di yaataa yime di lekk di naan waaye mbetteel iblis ñëw nax leen ba ñoom ñaar ñu lekk ci garab gi yàlla daa leen di dégager génne leen waaye yàlla bu mu leen di wàccee def leen wax ne fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa yéen a ngi nii may wàcce di leen génne aljanna di leen wàcce ci suuf fa qul nahbitu minha jamian fa imma yatiyanna min minni hudan wàcc leen dama leen di génne wàcce leen ci suuf sama njub nag dana ñëw ci yéen ku topp ci njub googu doo sànq mbokk jullit yi waaye njub googu képp ku ko dummóoyu da nga dund ci àdduna dund bu metti mu nekk ñaari mbir yàlla dane képp ku jàpp ci njubam doo réer doo sànk waaye képp ku ko dummóoyu di nga dund dund bu metti dund bu karaj léegi nag ñun dañuy xool tey fii nu toll ci àdduna ndax danoo topp njubal yàlla boobu ñu texe nekk ci jàmm wala dañ koo dummóoyu sànni ko topp leneen ay coonoog ay métit dal na suñ doon tontu loolu ixwatal im- iman ixwatal islaam danañ yëg ne lillahi fi xalqihi sunan wa qawanin wa yajibu ala al insani an yataarrafa alayha wa an yafhama kayfiyatu taamul maaha li anna saada aw alshaqa murtabita biha wa hadihi sunan wa tilka alqawanin la tatagayyar wa la tatabaddal qala jalla wa ala falan tajida lisunnati llahi tabdila walan tajida lisunnati lisunnati llahi tahwila sunu borom subhanahu wa taala dafa am doxalin bu mu tëral ci àdduna yoon wu mu sàkku nit ñi jaar ak ay luwa ak moom yàlla jalla wa ala nu mu bëgg doomu aadama doxalee doomu aadama jaar fii looloo tax nit adunaam du mun a baax lu dul mu jaar foofu yàlla bëgg su fa jaarul day sonal boppam rek gis nga tey aduna bi lu nekk am na fi mbooleem alal am na mbooleem taraanga am na mbooleem waruwaay am na lu nekk am na maaye ndax doomu aadama yi ñu ngi ci jàmm tontu bi mooy déedéet lu tax dañoo bàyyi yoonu yàlla duñ nekk ci jàmm mukk kañ la ñuy nekk ci jàmm bu ñu jaaree ci li yàlla bëgg bu ñu doxalee atte yàlla yi ñu nekk ci jàmm waaye bu fekkee dañoo lànk topp yoonu ñeneen di déglu ñeneen dund bu métti bii rek loolu tax yàlla mu ne ñu waman aarada an zikri fa inna lahu maishatan danka sunu borom moomu jalla wa ala dafa bëgg doomu aadama xam yoon yooyu yàlla wàcce doxalin yooyu yàlla bëgg doomu aadama jaar ci su boobaa doomu aadama day texe su ci jaarul day texee di texe doomu aadama am jàmmam ci kaw suuf sart bi mooy mu jaar ci li yàlla bëgg jeex na takk gis ngeen oto sartam mooy mu jaar mu jaar ci kaw tali rek boo ko dugalee ci ndox yaakaar naa dootoo amati oto avion sartam mooy mu nekk ci ngelaw li soo ko tegee ci suuf du dem otoraay mooy nga teg ko ci raay bi waaw léegi lu tax ñu xam loolu ñu bëgg a dund diine lislaam bëgg a nekk ay jaami yàlla waaye du ñu def li yàlla bëgg du ñu jaar fi yàlla bëgg loolu mënul nekk mënul nekk nit su buggee nekk jaamu yàlla wala mu bëgg am jàmm ci kaw suuf dafay jaar fi yàlla bëgg dafay doxal li yàlla bëgg ñun mënuñu nekk di topp ñeneen di bokkaale di dund ay bidaa di dund ay shirk di dund ay aada ba pare ñu ne nañ am jàmm mënul nekk ixwatal iman sunu borom subhanahu wa taala moo ñu wax wax ju wér mu ne fa man ittabaa hudaaya fala yadill wala yashqa képp ku topp li ma wàcce képp ku topp sama njub mu topp sama yoon mu topp sama alquran mu topp sama yonent kooku falaaya dillu du sànku ñaareel ba wala yasqa du texeeti ah ndeke boo toppee li yàlla bëgg assurance ngay am da ngay am garantie doo sànku waaye doo texeeti lan mooy sànku mooy nga nekk ci àdduna gëlëm comme tey nit ñi ni ñu gëlëmee da ngay gis jullit boo xam ne xamul fu muy teg tànkam xamul lu muy jaamoo yàlla xamu ko te nee na jullit la nga gis borom kër goo xam ne mokkalul sax faatiha faatiha fanaanul ci bopp bi te mu ne jullit la loolu mooy dund làmbatu loolu mooy dund texeedi loolu mooy dund sànku yow nga nekk jullit taaya sax mënoo ko taaya benn jigéen nee na ma imaam ma ne ko waa mu ne ma suma jullee ba yegg foofu ñuy yëngalee baar ma dama yëngal rek di yëngal rek est-ce que affaire bi yëngal kese la déedéet naka ngay nekkee jullit yow xamoo dara ci diine lislaam ixwaani fal qaanuun al ilahi allazi la yataxayyar wala yatabaddal wallazi yaxkumu man ittabaa hudaahu wa aamana bi ras bi rusulihi waaye wa man acrada an sharcihi wattabaa hawaahu qaanuun waadix tajalli wa sunanihi lan yataxayyar wa lan tatabaddal lu waay yàlla tëral doxalin ko mooy du changé yàlla li mu tëral du changé doxalinu yàlla du changé mu ñun bi ñu juddoo ba léegi asamaan fan la nekk ci kaw suuf si fan la nekk ci suuf géej gi fan la nekk ngelaw day ñëw góor góor la jigéen jigéen la loolu mooy luwaawu yàlla bu mu doxaleel ci kaw suuf jant bi fii lay fenkee fii lay sowee jeex na guddi day ñëw bëccëg ñëw loolu mooy luwaa yàlla du changé doomu aadama mooy changé waaye yàlla li mu wax wax na ko ba pare doo ko fekk mukk muy soppeeku abadan waaye ñun ñii ñun ñoo soppeeku ñun ñii ñun ñoo ñu jaarul ci yoon wi ñun ñii ñun ñoo ñu topp suñu bànneexi bakkan tey ñu dem ci Sénégal ba kenn ku nekk mën ngaa wax waaye boo nee yàlla ñu ne ah boo nee yonent ñu ne ah lan moo tax ñii yàlla kese la ñuy wax ak yonent ku nekk nangu nañ nga woote ba mu des kuy waxal yàlla kuy waxal yonent ku nekk nangu nañ nga woote bu Samba wootee waaw bàyyi leen ko mu wax am na am na ci droit su Demba wootee am na ci droit su Modou wootee am na ci droit su ku jigéen wootee sax am na ci droit waaye boo taxawee nga ne qaala Allah ñu ne non yow yi li ngay wax dafa ëpp yow li ngay wax jaarul yoon ah wa iza zukira Allahu wahda suñu waxee yàlla kese kese kese kese kese nga gis gaa yi izma azzat qulubu allazina la yuminuna bil axira wa iza zukira min dunihi fa iza hum yastabsiruun allahu akbar kon yoon yi yàlla tëral du changé ñun ñoo changé ñun ñoo bañ a jaar ci yoon wi ba pare di layee ne ñun ay jullit lañ li ñu yàlla indil ñu lànk ko li yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi ñu lànk ko ba pare ñu ne ñun ay jullit lañu waaw wala sax léegi saa yi nga dégg ku ne ñun duñu ay jullit ñun nangam lañu qad awjaba allahu lahu alhidayata wa saada fi dunia wal axira yàlla garanti na ku jaar ci yoonam ku jaar ci njubam yàlla garanti na la lan yow da ngay texe da ngay texe adduna da ngay texe alaxira kooku fala yadillu wala yashqa wa bayyana aydan subhanahu wa taala anna al imanu billahi wa ittiba hadiyihi bi sababi rizq wal ish alhaniya yàlla dafa garanti ne ngëm yàlla kenn du ko amee lu dul topp ci njubal yonent alayhi salaatu salaam soo bëggee gëm yàlla da ngay topp yonent bi munoo gëm yàlla bàyyi yonent bi munu nekk léegi imaginer yow nga bëgg a nekk ab jullit te gëmoo yonent yàlla muhammad li mu indi suñ la nee yonent bi nee na nga ne sàmba nee na qaala rasul nga ne qaala kaza qaala cheikh kaza qaala fulaani nga bëgg a jël waxu keneen teg ko ci kaw waxu yonent ba pare yow nga ne jullit nga yonent nee na góor warul jox loxo jigéen nga ne ah sëriñ Samba day jox loxo jigéen te yow xaw ko borom xam-xam la léegi yow nga ne gëm nga yàlla te yonent bi lañ la wax sahaaba bi doon na wax ñoom Umar ak ñoom Ousmane dama ragal léegi asamaan daanu seen kaw ma naan leen qaala allah qaala rasul ngeen naan ma qaala Aboubacar qaala Umar suñu waxee qaala rasul sax kenn amatul droit wax qaala aboubacar wala umar te ñooñ ñoo gën ci xeet wi ginnaaw yonent yàlla muhammad aboubacar moo gën ci xeet wi ginnaaw yonent yàlla muhammad caggal abu caggal ne laa domen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam aboubacar ɓuri e leñol ngol leñol ngol fof julɓe ɓe fof so ɓe renndinama e nokku ko aboubacar ɓuri ɓe ɗum ko nelaɗo maaki ɗum nelaɗo haali sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wi ma wata atil ardu bada al anbiya hayrun min abi bacrin aduna o fof so ɓe renndinama nelaɗo wi aboubacar ɓuri ɓe ha yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne adduna bi yëpp bu ñu leen boolee nit ñëpp laa wax adduna bi yëpp bu leen bàyyi kenn ku ngeen di xalaat seen xel teg leen ko ci balance bi ci la bokk dafa am koy xalaat yow teg ko ci balance bi kooku ci la bokk teg ko ci yonent yàlla muhammad nee na kooku aboubacar a ko gën ginnaaw yonent yi aboubacar moo gën ñëpp waaw suñ la ne aboubacar ñu ne la yonent bi nee na sax amoo droit amatoo droit wax aboubacar nee na ida qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa ras wa ida qaala gayruhum fa hum rijal ixwat al iman nañu yëg ne texe aduna ak texe àllaaxira mu ngi nekk ci topp yàlla ak topp yonent sallallahu alayhi wa sallam texe aduna ak texe àllaaxira mi ngi nekk ci nga topp li yàlla indi yàlla dafa sàkk jaam ñi yónnee leen ay yonent wàcce ci ñoom ay téere jox leen ay loi ak ay yoon ak doxalin yàlla ne yonent yi nañu wax nit ñi nañ jaar ci yoon yooyu yonent yi ñëw wax ba pare nit ñi ne ñoo ñun duñ jaar foofu fii moo gën a gaaw waaw ndeysaan fii moo gën a gaaw fii moo gën a gaaw laa ilaha illallah yonent yi ñëw wax ba pare nit ñi lànk ne ñun duñ jaar foofu am na yeneen yoon yeneen yu ruq yoo xam ne ñun buñ fa jaaree rek danañ yegg yàlla mu ne tëj naa bunt yëpp bu dul yoonu yonent yàlla muhammad képp ku jaar beneen yoon da ngay sonal sa bopp loolu dafa war a leer ci ñun su leeree ci ñun rek suñu nekk jullit day yomb ixwat al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله فيقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ويقول سبحانه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم سن برام نينا su fekkoon ne adduna bi walaw anna ahlal qura waa dëkk yi ngeen di adduna bi yépp aamanu gëm nañu yàlla wattaqaw ñu ragal ko su fekkoon ne adduna bi ñëpp ay jullit lañ ragal nañ yàlla yàlla mu ne la fatax naa damay ubbi asamaan asamaan laay ubbi barke yi daal di wàcc kon ñëpp nekk ci jàmm la fatax naa lay wax damay ubbi bu ñu fàtte ne suñu dund suñu wërsëg bu ñuy dund nekkul fii ci suuf sii déedéet wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun suñu wërsëg mu ngi kaw asamaan yàlla da koo tëj suñu gëmee yàlla rek yàlla ubbi robinet yi mu wàcc li ñu yàlla dencal ak wërsëg bim ñu dig mu ngi kaw asamaan lan moo tax mu nekk fa parce que yàlla nee na maa ko fa def lan mooy tax mu wàcc su ngeen gëmee yàlla ragal yàlla ma wàcce ko kon loo ciy dégg mooy bu ñu lànkalee yàlla comme tey lànk di topp ay nit su ñooñu waxee ñu def bu yàlla waxee ñu lànk topp ñeneen si yent yàlla muhammad waxee ñu lànk su keneen waxee nu dégg yàlla nee na dama koy tëj ngeen sonn mu ngi ni tey ci réew mi ku ne sonn rek da ngay wax la neex même boo nekkee borom alal sax da ngaa sonn waxuma la ak nag boo nekkee miskin amoo dara góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a sonn lu tax parce que dañoo lankal yàlla loolu yàlla moo ko wax yàlla nee nag sama yoon wii képp ku ko dummooyu rek di nga dund dund bu métti sunu borom nee na bu ngeen ma gëmoon dëgg di ngeen lekk ci kaw lekk ci suuf wallahi nu leen neex ngeen di dundee la akalu la wax min fawqihim wa min tahti arjulihim su ngeen gëmoon yàlla dëgg yàlla nee na lépp laay nooyal ay la aasu fi ragadin min al iish wa siatin fi rizq li annahum qawmun muminuun mu ne bu ñu gëmoon yàlla yàlla day ubbi wërsëg yi ñu dund dund gu neex gu am tranquillité dund gu am kóolute dund goo xam ne doo gis agresseur doo gis saay-saay doo gis bandi doo gis wëyu doo gis kuy jaay boppam doo gis naaféq doo gis seytaane doo gis nguur goo xam ne day jàpp nit ñi di leen wulli guddeeg bëccëg déedéet ñëpp yàlla nee na man maay organiser dund gi waaye dañoo lankal yàlla moo tax it yàlla teg suñu kaw ay buur yoo xamante ne dañ ñuy wulli guddeeg bëccëg te kenn mënu ci dërëm dara la ci kenn mënut ndax yàlla moo ko def ixwaan yi fa inna taxayurat al ahwali al bashar wa tabaddalat qulubuhum wastabaddu al imana bil kufri wa taa bil maasiya wal islaahi bil fasad fa sunnatullahi an yagayira xaalahum wa an yasluba minhum al niam wa yaxillu alayhim al azaba wa shaqa suñu borom nee na nit ñi bu ñu changé ngëm yàlla ñu nekk ñu ne yéeféer kéeféer lañ tànn ak ngëm ngëm yàllaa ngi nii kéeféer a ngi nii nit ñi ñu ne ñun kéeféer moo ñu gënal jàkka jaa ngi nii stade baa ngi nii gars yi nañ non stade stade ak jàkka ban moo gën a fees tey facebook ak kaamil facebook ak kaamil ban moo ëpp nit whatsapp ak kaamil ban moo ëpp nit ah soirée yi ak jàkka yi jumaa yi julli fajar ak soirée ban moo ëpp nit ah saa yu yàlla ne ngëm yàllaa ngi nii nit ñi jël kéefir yàlla mu ne ñu topp mu ngi nii nit ñi ñu ne mooy yàlla lañ jël yàlla mu ne mbaax a ngi nii ñun ñu ne ñun dañuy bon yàlla day changé adduna bi day day day rocci xéewal gi mu indi woon lan mooy am mooy texee di mooy am lan mooy am coono mooy am lan mooy am jafe-jafe mooy am lan mooy am métit mooy am parce que yàlla day rocc barke bi dindi wërsëg wi nit ñi sonn guddeeg bëccëg koo gis day daw 24 heures sur 24 laa ilaha illa allah suñu dars fajar démb moo doon waa ji nangu naa yeewu fajar ndax liggéeyam nangu naa yeewu fajar ndax entraînement yaramam nangu naa yeewu fajar di gunge doomam mu jàngi waaye nanguwul yeewu ndax yàlla boroomam nangu naa yeewu pour wërsëg waaye nanguwul yeewu kii joxe wërsëg nangu naa yeewu ne day liggéey fii ngeen dëkk ñaata nit ñoo fi yeewoo fajar di egg huit heures Dakar duñ tardé ak fii ñëw fi nu mu jafee génn fi rek dem fii rek ci Rufisque bi nu mu jafee waaye waajooju du tardé parce que lan wërsëgam li muy dundee foog mu respecté heure bi waaye nanguwul yeewu fajar taxaw ci kanamu yàlla julli ñaari rakka nangu naa daw ci ginnaaw wërsëg waaye nanguwul daw ci ginnaaw kii wërsëgalaate te kii wërsëgalaate mooy yàlla mbokk yi foog nu xoolaat suñu bopp mbir yi du vendredi ba vendredi rek nga gàddu sax sa jaada gàddu kurus ñëw allahu akbar dóor mu daanu ñëw booy mosquée laa jóge quoi oui dóor naa ko pare naa ci ah du loolu fii la mbir bi fii la fii fii la ñuy defar alqulub defar xol yi defar xol yi jéem a génne li ci nekk dugal ci yàlla dugal ci diine dugal ci ngëm soo ko amee nga am xalaawatul iman bànneexu ngëm yàlla tabaraka wa taala lu neex yàlla moo lay neex su boobaa dootoo biddanti fajar jàkka su boobaa dootoo xëy jàngoo Qur'an su boobaa dootoo génn jafoo sa askar su boobaa nga xam ne yow ab julli dëgg nga yaa ngi góorgóorlu di dindu diine diine bi dañ koy dund kenn du ko sol dañ koy dund dund olof yi nee nañ la mu saf ka ko macc moo ko xam waaye sa nokki longere maaro a waɗi e hoƴƴuduma a tinat ina wuli kono a andata ina safi holne anndata ina safi so a waɗe hunuko ma ko ɗum woni diine diine ma waɗe hunuko ƴakka moɗa yaha ngader ɓernde saro e e nder ɓanndu ngannda diine nene ma kono a ƴetti diine tan a a ɓornima ɗum so a ɓorti wutte o diine yehi il faut faame ko yahete ko diine o wona wutte rek ɓorneteɗo diine koko wuurete diine ko nguurdam ko manhajul haya nelaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam mi addani on diine pour wuron ɗum o wiya o wiyani mi addani on diine pour ɓornoɗon ɗum ihwatal iman mbokk yi ci yàlla nan leen góorgóorlu waat ñu xoolaat suñu bopp ñu xam ne diine l'islam diine la boo xam ne aw dundin lañ bu ñu yàlla indil yonent alayhi salaatu wasalaam mooy jàngal diine jooju naka lañ koy dundee sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo nuy jàngal diine boobu naka lañ koy dundee amul kenn ci àdduna kuy jàngale diine ku dul yonent looloo tax yàlla mu ne wa ma ataakum rasul fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yonent bi mu ne kullu ummatin yadxuluna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasulallah qala man atani daxala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alayhi wa sallam allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم لا تجعلنا جبنا فندأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله